wolof dafay faral di wax ni yàkkamti ak gaatu waxtu wu ñu juree doom réccu rek lay tudd nañu gaatu nag ba jël vaccin bi nañu ko nunuus dabaj ñu ko vacciner ñu ñu xool vaccin boo xam ne c'est la première fois dans l'histoire de la médecine mondiale que benn feebar am amuñ benn vaccin en commun que les médecins sont en ordre dispersé que des médecins chevronnés na parlent pas le même langage pour trouver un vaccin et que tey jii boo ñi nga xam ne seen xam màcc na ci on peut noter le cas de du euh, docteur Raoul Didier mais nit ñi bëgguñ sax dañ koy artu sax di ko dànkaafu lu tax day mel ne kon am na lu tënku ci vaccin yi day mel ne firme yi sax ñu koy liggéey dañ ci bëgg wut business parce que plus de cinq six xaw ma cinq vaccin ñu ngi koy commencé wax Moderna bi Pfizer BioNTech euh, aux États-Unis euh, ak Sputnik V bi ak. ak euh, COVAX dégg nañu fi COVAX ak Sinopharm Chine ak yeneen ak yeneen mu mel ni firme yi OMS bi organisation mondiale de la santé dafay profité ci loolu ngir nag ñu am ci koom-koom ndax ku nekk ni les vaccins coûtent très cher maintenant ci Sénégal kenn newul vacciné baaxul ndax yàgg nañuy gis feebar yoo xam te vaccin moo ko fi jëlee wax dëgg yàlla vaccin kenn waxul baaxul mais fi feebar bi ak vaccin bi ñi ci seen xam-xam màcc kenn nangu ci àddu wala ñi ci àddu ñi ci war a àddu waxuñ ci moo tax souvent mooy bu ñuy wax ci cas yi chaque jour ñuy jox résultat man j'aimerais bien avoir ku ci mel ne docteur Marie euh, Marie Khemesse Ngom Ndiaye xam-xam màcc ci wàllum santé publique docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ñu toog dans les plateaux def une communication de masse sensibiliser les populations ñu respecter les mesures barrières que ñu xëy joxe communiqué su mel ni ku nekk ci élection présidentielle wala ay résultat sur deux cent nangam vingt nangam moo tax ma ne ñi ngi naan dañuy géeri waaye ñiy géeri lu leen faj comme Sénégal nit ñaa ngi géeri ke nañ ñaan yàlla géeri gi yokk nit ñi respecté mesures barrières takk masque soreyante raxasu bay set mais vaccin yi ñu commencé tëb tëb te tey il est temps ma profité ci Afrique am seen gis nga faible dafa fësal lu bëri ci ay faiblesse euh, ci ci au niveau de no dirigeants Afrique tey jii waroon nañu passé fii dem ba am seen firme boo xam ne ñoo ko moomal seen bopp ci wàllu médecine mais amuñ ko paracetamol bu baax sax mënuñ ko fee defar fii si Sénégal sax bi fi nekkoon taa yàgguñ ko wax nañ ko tijji c'est-à-dire que ñun nous sommes trop dépendants et malheureusement cette pandémie a révélé beaucoup de faiblesses vis-à-vis des politiques yi nga xamante ni suñu dirigeants ñu ngi koy def te dañ ko lajj kon vaccin bi nañ ci def ndànk jekki jekki nag population boo xamante ni ñëpp dañuy commencer di loof ak di kii am na ñoo xam ne yàq seen tànk yàqu nañ li nga ko def vaccin pël yow may lit beeg yeneen ak yeneen nañ ci tey na ci ak dal ndax docteur ñaa ku ne xam ne xam màcc na ci nee na vaccin day durer ay ay at pour ñu mën ko trouver si daa nii ba tey amaguñ vaccin kon pour pas ñu bëgg tëb ne pët ne kët ne jot nañu vaccin dañu koy proposé Afrique de kobaayu kenn nañ ci def ndànk dal ci bu buñ ko saytoo nag ba am ci lu leer nañ ñu gis ci ay résultat ñu testé ci gis ci ay résultat ah ay la yéwén nit ñi jël ko ndax santé ñëpp ko bëgg